que diabétique mun na faatu bu fekkee euh, dañ ko perfuser sérum euh, glucosé déedéet au contraire am na situation yu diabétique bi di di toll par exemple kaa bu gën a simple mooy hypoglycémie maanaam suukar doyatul ci ci yaramam taux bi dafa wàcc ba yées euh, zéro sept gramme par litre moment boobu situation yooyu boo ko defalul sérum glucosé boobaa nag lay ñàkk bakkanam diabétique boo xam ni dafa war am suukar te joxuñu ko suukar loolu moo koy faat diabétique boo xam ni suukar bi donte sax dafa dafa yéeg yokkal ko suukar du faat bakkanam am na yeneen situation yoo xam ni sax diabétique bi dafay ñëw nekk daal le am taux suukar bu yéeg ñu koy faj di ko jox euh, garab bi ñu naan insuline insuline bi njëriñam mooy jël suukar bi dugal ko ci biir cellules fu ko fu ko nit ki di soxlaa fu fu ñu koy utiliser loolu mooy njariñu insuline parce que diabétique mooy koo xam ni insuline boobu soo amatul ci yaramam walla quantité bi néew na loolu moo tax yenn diabétique yi seen feebar tollu foo xam ni dañ leen di jox insuline donc insuline boobu boo koy jox nit kooku koo xam ne dafa am diabète ba taux sucre bi yéeg trop insuline bi dafay dugal sucre bi ci biir cellules dina toll moment boo xam ne nag day continuer di ko jox donte sax arrêté nga joxe insuline bi mais insuline bi day continuer liggéeyam donc bu fekkee taux bi normal na te insuline bi di continuer di def liggéeyam te amatul benn suukar buy circuler bu muy dugal ci ci cellules yi euh, malade bi ñëw boo xam ni dafa ñëwoon te taux suukar bi yéeg dafay dem ba am dootul amati benn suukar ci yaram bi mu daal di def mi jóge nag coma hyperglycémique daal di basculer ci beneen côté coma hypoglycémique boo xam ne moo gën a dangereux si moom loolu mooy faat bakkanam léegi nag bu fekkee euh, am na diabétique boo xam ni dafa dafa faatu donte jox nañ ko sérum glucosé wala jox ñu ko sérum glucosé mun na am leneen moo faat bakkanam parce que diabétique am na droit am ay problème cardiaque am na droit am ay problème renal am na ay droit Euh, def euh, li ñuy naan crise cardiaque am na droit def accident de la circulation euh, mu faatu donc diabétique bu faatu ça veut pas dire obligatoirement complication diabète bi wala faj diabète bi moo faat bakkanam diabétique am na droit def yeneen feebar yoo xam ni bokkul dara ak diabète bi diabète bi day daal di nekk juste terrain wala base boo xam ni yeneen feebar yi ñoo ñëw lal ci kawam